Euh, de fil wi aiguille euh, dem nañ ci gouvernement gis naa ne suñ parti bi ñu créé woon dafa am luñ ci jubloon te gisoon naa ne mu ngi sooxee yooni yoon avertir naa leen yooni yoon interpellé naa leen yooni yoon jéem naa pour que ñu taxaw ci parti bi te boo xotee archive seen émission yi fii danga ko gis booba laa ne nag comme man parti bi wutuma ci dara li ma ci bëggoon mooy ànd xale yi gën leen jàppale encadrer leen pour que ëllëg ñoom comme jóge nañu PDS pour certains d'autres musuñ dugg ci parti politique musuñ nekk parti démocrate sénégalais ñeneen feneen lañ nekkoon ñëw ci ñun su fekkee ne du ma am occasion transmettre leen li nga xam ne jàpp naa ne xam naa ko ci politique c'est pas la peine je vais aller m'occuper de mes moutons. parce que dañ la mettoon en en en marge daanaka ci ànd sukkale bi euh, ñoom maître Sall ñoom ñoo gënoon a nekk comme on dit. waaw loolu aussi euh, constaté naa ko mais dama wax rek c'est normal parce que loolu moo nekkoon PDS c'est-à-dire euh, maanaam euh, avatar yooyu maanaam jikko yooyu nekkoon Parti démocratique sénégalais moom lañ jël dogal ko PLD te pourtant on disait ñun ñëpp ñenn ñu bari ci ñun surtout ñi nga xam ne mosu nekk PLD dañ daan wax naan PLD PDS daal la fa xewoon nañ ko fa bàyyi def lu bees. malheureusement je pense que. ils n'ont pas wolof ne na euh, liy sax ci suuf jamono bu loo ko wat wat il faut mu dellusi peut-être loolu moo indi euh, ma comprendre ne compagnonnage bi jarul continuer mais mu nekk ci teraanga ak ci njekk euh, ndax sama diggante ak Omar dara ñaawu ci li ko waral dëgg-dëgg nag mun naa la ko wax. lan la mooy Aziz Diop. waaw nu mu ko waralee. day sama rakk. day sama rakk joo xam ne dafa ma bëgg euh, day sama rakk joo xam ne lu mu ma laaj mën naa ko ko defal. moom moo tax compagnonnage bi nga dagg ko ci jàmm. waaw mooy benn d'abord moo tax ma dugg ci. ñaareel ba génn naa ci at kenn xamu ko ndax Aziz Diop ndax kerse gu ma am ci moom mais bu ma demee ba affaire yi sës dama dama dama dama bàyyi parce que bàyyi bi aussi du ma wàññi dara lu mu changé ci man jógee PDS. jógee PLD toog sama kër lu mu ci man. alors euh, dox ci réew mi nga bàyyi ma bàyyi ah, PLD. ñeneen ñi ci laa jëm yow yaa tijji volet politique de. Ah, man de man de foofu laa laaj fii affaire yoo xam ne. voilà yow yaa tijji volet politique alors alors.